njool makka yaa leen gën taala wa barakatuhu mbokki téléspectateur Al Maktoum TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di leen ndokkeel beneen yoon ci shahru ramadan al mubarak bi di leen ñaanal jàmm bu baax di sàkku ñaan ci yéen waaye di ñëwaat tey ci seen guddik ñaar fukki fan ci weeru koor di leen indil seen naafila bés bi tey nag suñu naafila bi am nañu wit raka huit rakka mooy juróom ñetti rakka rakka bu nekk dinañ si jàng fatiha benn yoon ginnaaw buñ jàngee fatiha ba pare nag dinañ si teg ina anzalnaahu benn yoon suñu paree ñu teg ci suuratul ixlaas ñetti yoon trois fois euh, suñu borom bi subhanahu wa taala nag mu ngi dikk gaa yi nga xam ne ñooy taxawee bii naafila képp ku ko taxawee di nga am tiyaaba joo xam ne maanaam mbindeef mu yàlla bind ci kaw suuf jaamu yàlla bu mu mës a jaamu yàlla yiw woowu yàlla dina la ko jox incha allahu rabbi loolu nag yaakaar naa ne rëy na rëy na lool waaye nag ñu ngi dénk suñu mbokk jullit yi bu ko kenn rate ndax loolu moom yaakaar naa ne weesu rëy daal loolu moom rëy mënu koo weesu kon nag na ko ñëpp taxawee incha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax di ñaan yàlla nangul ñu nangul mboolem jullit waaye ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg ak jàmm incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah wa njol makka yaa leen gën.